Le tambour de Sokho est là Emile François Gomis nee naa leen njaago or baa ngi nii tout droit fara ngi noonu fara ngi ngi nii waay waay fara ngi nii de Edouard Dimle Diokh laa koy woowee Dim si nga yàlla naa borom sol François Gomis jóge na ci combat ba kii waa Mbapat nañ ko de na retour am kaw na Franc ngay di eh Fara gars yaa ngi koy yuuxul quelle forme quelle force doomu parcelle baa ngi nii eh Fara Jambar Wrestling Academy la ne njaago baa ngi nii doomu parcelle baa ngi nii kenn du moom Mamadou Faye jaxale mu kaay xoolal ma lii Fara ko xoolee bëriwul noonu waaye eh, gars yi nee nañ lii daan mbër di si làmb mun nga koo defee kër ga soog a ñëw na nekk lu ñuy songoo wala lu ñuy yi noonu Émile François Gomis njaago or bi